jëf ya sar ñaar fukk juróom bi loolu wéyee nu fas yéene noo dugal gaal jëme réewu itali noonu ñu jël pool ak ñeneen ñi ñu tëjoon dénk leen jiitu xare bu tudd mi bokk ci mbooloom xare mu buur ñu dugg ci gaalu dëkku adramit guy taxaw ci teeru asi daldi tàbbi ci biir géej te aristark mi dëkk tesalonik ci diiwaanu masedowan ànd ak nun ca ëllëg sa nu ter sidon yuliyus laabiir ci pool may ko mu dem ci ay xaritam ngir ñu ganale ko bi nu fa jógee nu dem ci biir géej leeru dunu sipar ci feggu ngelaw li ndaxte ngelaw li dañoo soflu ñu jàll géej gi janoog diwaanu silisi ak pamfili teer si mira ca wàlli lisi foofa nag njiit la gis gaal gu jóge alexandri jëm itali mu dugal nu ca noonu nuy dem ndànk diiru fan yu bari ba janoo kaniid ci kaw coono bu réy te ndegam ngelaw li mayunu nu jëm kanam nu leeru dunu kret ci feggu ngelaw li janook salmon nu romb fa ak coono yu bari agsi ci berab bu ñuy wax teeru yu neex te dend ak dëkku lase fekk booba yàggoon nañu ca yoon wa te dem ci géej daldi aytal ndaxte jamonoy kooru yawut ya wees na moo tax pool digal leen ne gaañi gis naa ni tukki bi ëmb na musiba ak kasara ju bari waxuma gaal gi ak limu mu yépp waaye sunuy bakkan sax xej na ci waaye njiit la sobanteel waxi pool dëggal dawalkat ba ak boroom gaal ga te gannaaw teeru ba neexu la lollikoo ñu ci ëpp mànkoo ci jóge fa dem ci biir géej ngir wuta agsi finiks bii teeru dunu kret te janook sowu suuf ak sowu kaw nu lollikoo fa noonu bi ngelaw lu woyof liy jóge sudd wolee ñu defe ne mën na noo sottal seeni pexe ñu wëgg diigal daldi tefu ci dunu Kret waaye nes tuuti ngelaw lu wole panku ñu di ko wax erakiloon jóge ca dun ba ne milib ci suñu kaw mu ëpp doole gaal ga daldi ko wat ba nu bayliku daldi yal ñu daldi daw leeru dun bu tuuti bu ñuy wax kodaa ci fegu ngelaw rawale looca ga ca kaw gaal ga ak coono bu bari bi ñu ko yëgee ñu fab ay buum ngir laxas ca taatu gaal ga ngir ragal daanu ci suuf su nooy ñuy wax sirt ba noppi ñu daldi sànni diigal ngir wàññi doxub gaal ga ñuy yàlle noonu waaye bi nu ngelaw li sonalee bu metti ca ëllëg sa ñu sànni la gaal ga yeboon ca géej ga te ca ñetteelu fan ba ñu sànni ak seeni loxo jumtukaay yu ñu jëboon ngir fàggu noonu jant bi ne meng te biddiw ne mes ay fan yu bari fekk ba tey ngelaw li di wol ak doole ba sunu yaakaaru mucc gépp tas bi loolu di xew fekk gëj nañoo lekk Pool daldi taxaw ci seen biir ne leen gaañi li gënan mooy ngeen déglu ma te bañ a jóge Kret ba indil seen bopp musiba ak kasara jurey ji léegi nag maa ngi leen di dénk ngeen takk seen fit ndax gaal gi rekk mooy yàqu waaye kenn ci yéen du dee ndaxte ci guddi menn malaaka dikkal na ma jóge ci yàlla sama boroom bi may jaamu mu ne ma pool bul tiit faw nga taxaw ci kanamu sesaar te yaa tax yàllay aar bakkani ñi nga àndal ñépp moo tax gaañi takk leen seen fit ndax wóolu naa yàlla ne lim ma wax dina am waaye war noo luf cib dun ca fukkeelu guddi ga ak ñeent ñu nga doon jayang-jayangi ca géeju adriatique noonu ca xaaju guddi dawalkatu gaal ga defe ne dañoo jege ci suuf ñu sànni nattukaay ba ci biir géej mu jàpp ñeent fukki meetar dem ca kanam tuuti sànniwaat ko jàpp fanweeri meetar ñu ragal ni dinañu fenqu ci ay xeer kon ñu daldi sànni ñeenti diigal ci geenu gaal ga di ñaan bët set waaye ci kaw loolu dawalkat gaal ga taafantaloo sànni ji ay diigal ca boppu gaal ga fekk dañuy fexe jël looco ga baraw waaye pool ne njiit la ak xarekat ya bu ñii desul ci gaal gi du ngeen raw noonu xarekat ya dagg buum yay téye looco ga bàyyi ko mu wéy bi bët setagul sant leen ñu lekk mu ne leen tey mooy seen fukki fan ak ñeent yu ngeen ne jonn lekku leen mosu leen dara maa ngi leen di sant nag ngeen lekk ndax noonu rekk ngeen mën a rawe ndax genn kawar du rot ci yéen bi mu waxee loolu mu fab mburu sant yàlla ci kanam ñépp damm ko daldi ko lekk bi ñu gisee loolu ñépp dëgëraat ñu daldi lekk ñoom itam mbooleem ñi nekkoon ca gaal ga mat na ñaar téeméeri nit ak juróom ñaar fukk ak juróom benn noonu ñu lekk ba suur daldi sànni pepp ma ca géej ga ngir woyofal gaal ga bi bët setee nag xàmmiwuñu réew ma waaye séen nañu ruqu tefes noonu ñu fas yéene ca teeral gaal ga bu ñu ko manee ñu dagg diigal ya bàyyi leen ci biir géej yiwi waale baar ba ba noppi firi wiiru kanam ga jublu ca tefes ga waaye ñu dal ca tund suuf ca bereb bu ñaari korong daje gaal ga daldi fëluf luf bopp gaal ga nuur bu baax ne fa tekk te dooley duus ya daldi toj geen ba bi loolu amee xarekat ya bëgg a rey ñi ñu tëj ngir ragal ñenn ñi feey ba raw waaye njiit la bëgg a musal pool mu tere leen pexe ma musant ñi mën a feey ñu jëkk a sóobu ca ndox ma ba jot tefes ga musant sant ñi ci des ñu def noonu langaamu ci ay dénk mbaa ci tojiiti gaal ga noonu ñépp jot ca tefes ga ci jàmm ak salaam